dalee nag jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV ndax waa kes des dépôts et consignation am nañ droit ci waxtu bu ñuy wax ni daal di delloo kii di Ayib Daffé di mandataire kii di président Ousmane Sonko caution ba mu déposé woon foofee waaw wala déet li ab laaj la bopp si Sénégalais yi bëggoon ñu daal di leen koy leeralal. si laajte boobee nag tontu bi déet la lu tax ñu wax li ni mel mooy que ne kii di Ayib daafe di mandataire kii di président Ousmane Sonko ginnaaw ba mu jëlee caution boobee daal di koy jébbal waa kes des dépôts et consignation ñaari mbir rek moom mooy tax mu daal di jotaat ci caution boobee. mbir bu jiitu moom mooy ko ne kookee di Ayib Daffé bis bu jëlee dossier kii di président Ousmane Sonko daal di koy jébbal waa conseil constitutionnel te waa conseil constitutionnel ne kii di président Ousmane Sonko du bokk ci élection présidentielle 2024 jëm. ginnaaw bañ vérifier dossier boobee ne daa am lu ci manqué kon kii di Ayib Daffé dinañ ko joxaat caution boobee mu bàyyi woon na biir caisse des dépôts et consignation jours ginnaaw buñ daaxee candidature kii di président Ousmane Sonko. ginnaaw loolee tamit si yoon lenn rek moom moo war a sabab kii di Ayib Daffé jotaat ci caution boobee mu déposé woon biir kes de dépôts et consignation te mooy que ne. ginnaaw bu jébbalee dossier kii di président Ousmane Sonko waa conseil constitutionnel ñooñu bu ñu ko vérifié ba noppi daal di koy valider maanaam ne kii di président Ousmane Sonko mën naa bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm si li ni mel kii di président Ousmane Sonko bokk ci élection yooyee ba noppi ñu ko voteel daal di weesu limu 5 pour cent ci élection yooyee loolee dina tax kii di Ayib Daffé tamit jotaat ci caution boobee mu dal di bàyyi woon ci biir caisse des dépôts et consignation. waaye bu weesoo ñaari kaa yooyee waa caisse de dépôt et consignation amuñu droit ne dañuy jébbalaat kii di ay Daffé ab caution bu mu fa daal di bàyyi ndax loolee bis bu ñu ko defee daal di nañu jalgati yoon ci réew mii di Sénégal ndax ci ñaari cas de figure yooyu rek lañ leen maye ñu daal di waat caution ab mandataire boo xam ne dafa ñëw daal di représenter ab candidat ci ay élection ci réew mii di Sénégal.